asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare uh, di ñaan yàlla dolli leen jàmm ak salaam ak sutur ak xéewal uh, di féliciter suñu équipe nationale bi nga xam te ne nii def nañu jaloore bu rëy nga xam te ne nii jël nañu coupe d'Afrique bi uh, di lu ay réew yu bari doon xëccoo waaw ñu gis ne nag ne aussi tamit mbir mi ah yàlla suñu borom def na ci sutura ba nga xam ne. ba ñu dalee doow ci gannaaw coupe d'Afrique bi ba léegi ah yàlla def na ne ñu jël ko ren te peut-être que ci génération bi la ko yàlla tuddoon waaw mu am nag ay wax yoo xam ne jóg na ci moo xam ci ñi nga xam ne nii dañuy yëngu ci wàllu ñaan wala ci yëngu ci wàllu sëriñ mu ñoo xam ne jotoon nañ ci sànni seeni i kàddu wax ci wax yoo xamante ne nii ay wax yu xaw a doy waar la euh, vraiment di wax ne tamit euh, nit xam-xam bu la yàlla may bépp martaba boo mënti am ak daraja boo mënti am euh, bul toog mukk palaasu yàlla ndax mbir mu aussi yàlla rek la ku dul yàlla du kenn kudul yàlla du fenn ku yàlla du lenn bien vrai que ne nag xam-xam am na ndax xam-xam lu ñu naw la te xam-xam lu wér la te xam mooy doxal àdduna ndax nit bu demee ba xalaatu rek àdduna tukki waaye loolu warul tax nit naagu aussi ak xam-xam boo mënti am ak noo mënti toll ci wilaaya warul tax nga naagu bay giñ wala aussi tamit bay yëkkati yenn kàddu yi ah su boobaa nag dafay mel ne nag da ngay défier suñu borom te yaakaar naa ne yéen borom téere yi borom xam-xam yi xam nañ ne yàlla ci boppam ah kenn du ko défier ndax moo yore lépp moo yore lépp te yàlla nii nit di xalaatee wala nii nit di àttee nii yàlla suñu borom di àttee di moins nit mënu ko àttanu ko. te nii nit di xalaatee du noonu la suñu borom di xalaatee kon yàlla je le répète encore une fois ni muy àttee nit munu ko àttanu ko ndax gis nañ ne yonent yàlla musaa ba ñu waxee kan moo fi ëpp xam-xam daf fëgg dënam ne man ci la ko suñu borom nag boole ak Luqmaan gis ngeen la fa xew xew fa xista bu gudd la borom xam-xam yi xam nañ ko kon vraiment daal di gën a ñaanaat doon donc vraiment que nañuy gën a xoolaat kàddu yi nañ koy gën a xoolaat communication bi euh, moo tax Coupe d'Afrique bi réglé na fi lu baree baree baree bare defar na fi lu bare tax na aussi tamit ñi nga xam dañu doon defee suñu borom war na leen ne kat attention mbir mi man la man la kon yàlla rek la bien vrai que ne nag naw nañu xam-xam ku nekk respecté nañu ku ne ndax aussi la respect d'autrui est le fondement de la dignité ndax nit ku nekk rek war nañ ko jox cër même nu mu mënti toll quel que soit alpha ak xale bu ndaw bi sax dañ ko war a jox cër waaye nag vraiment lii aussi dañ koy def pour gën di ñaax gën di ñaax aussi ak ku mu mënti doon ak foo mënti nekk nañuy def attention ci wàllu politique wàllu football wala wàllu làmb ndax bëgg a buzz wala bëgg daraja wala xaw mënuma ko mën a tuddee warul tax nga waxu lu waxuwul ndax la waaja doon woykat ba doon wax yaa war a wax yaa ñu saf taxul ngay wax lu lu taxul ngay wax lu la neex yaa war a wax yaa ñu saf bu mu la tax a wax loo xamul te kàddu dafa wax ne. ñiy jàngale wax dañoo wax ne kat saa yoo yëkkatee sa kàddu di wax rek raw nga ñetti buum teg mën nga wax ba yeew sa bopp mën nga wax ba yeew nit ñi mën nga wax ba yiwi leen te soo yëkkatee sa kàddu di wax nanga nga wax lan laay wax nan laa koy waxee fan laa koy wax waxal kon nga gis ne kàddu lu am solo la wax lu am solo la communication lu am solo la elle est très ci wàllu doomu aadama kon euh, lam bi wax nag bu sàjjee ku moytul alku ndax da ngay wax ba wax loolu alak Euh, kon ñun ñëpp Sénégal moom moo ñor ñun amuñu lu dul Sénégal kon donc le pays c'est le nôtre xubul watani minal imaan yi le patriotisme fait partie de la fois bëgg sa réew dafa bokk si jaamu yàlla nañu bëgg suñu Sénégal nañu bëgg suñu réew lu mu metti metti metti metti euh, te nga xam ne réew mi moo war a jongante nañu boole la main dans la main ku ci nekk nga def ci la nga ca mën ah su ko defee ndamul Sénégal ndamul ñëpp lay doon donc vraiment daal ñoo ngi ñi nga xam tamit euh, vraiment dañuy yëngu ci wàll woowu nañuy xoolaat kàddu yi du rafetal euh, te xam ne ñu ni ñu ni neen la Sénégal péricurse lañu benn bu moo ñuy nas kon waxuñu ko tamit pour dettel kenn waxuñu ko aussi pour dingat kenn waxuñu ko aussi tamit pour vraiment manque de respect à personne non dañ koy wax rek pour defaru ñun sax dañ ciy defaru pour ñeneen ñu aussi tamit ndax li gën a yomb ci nit mooy juum ndax amul ku dul juum amul mindaafun bu dul juum te looloo gën a yomb ci nit kon pour éviter loolu lépp vraiment encore une fois ñoo ngi féliciter ñëpp di féliciter tout le peuple sénégalais parce que gis nañ détermination bi gis nañu aussi tamit li nga xam ne moom la ñu def ak ni ñu teertoo Lions yi ak ni ñu préparé lépp li nga xam ne moom mooy Coupe d'Afrique bi ni ba yàlla defal ñu sutura kon yàlla mu ngi ñuy defal sutura waaye yàlla na ko dolli yàlla nañ yàlla dolli sutura yàlla nañ yàlla dolli sutura ah di ñaan tamit ñun yàlla nañ yàlla sàmmal suñuy làmmiñ sàmmal ñu suñuy xel ba suñuy ndam di ci yokk ndax léeg-léegi nag nit wax ba wax penalty te jubluwu ci woon loolu kon man Cheikh Fall Sow maa doon waxtaan ak yéen nekk directeur rajo bu Témoin FM 107 point 0 ah, di jégalu nag ci kàddu yi bu nekkee ne am na koo xam ne offensé na ko wala koo xam ne aussi tamit heurté na ko ah maa ngi koy jégalu bu baax a baax a baax ndax jubluwu ma ci loolu li ma ciy jublu rek moom mooy que ni ah, rek mooy nañu teey nañuy def ndànk nañuy def ndànk ci li ñuy wax nañuy def ndànk ci li ñuy def nañuy def ndànk aussi ca fa ñuy dem kon donc nit ku nekk rek yaakaar naa ne loolu maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk ñëpp tamit di ko dénk ñëpp donc maa ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla nañ yàlla dolli sutura defal ñu teraanga àdduna ak àllaaxira te mbas mi yàlla na ko fi yàlla jëlee ñi nga xam dañoo nekk ci lalu hôpitaux yi tamit tëdd fa te amee ay méttit yàlla na ko yàlla suñu borom saafara ñi nekk ci prison yi aussi yàlla na fa fa ndax jombul kenn euh, ndax ñett fa nekk kii tooñ ki ñu tooñ ak kii juum te may ñooñu ñëpp yàlla na yàlla suñu boroom génnee leen fa ba nga xamante ne nii aussi tamit dootuñu fa dem ku fa mosul dugg aussi tamit yàlla na la ko yàlla umpale ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sénégal ñun kese la ñu ni ñu ni neen la c'est le pays de la teranga politique beeg xiiroo beeg ŋaayoo beeg mbi mbiicoo mballoo beeg amul solo balaa suba mën na am balaa suba kenn ci ñun dee ñu ne l'enterrement aura ndax yàlla suñu boroom nag waxul kan kenn kañ la fan la ak nan la kon nañu rafetal tibbante tànk tamante dëmm amul njëriñ amul njëriñ nañu rafetal ci suñuy diggante suñu boroom ñuy rafetal suñu diggante ak suñuy moroom ndax àdduna encore une fois yàggul yàggul dagam dund doomu aadama sax moom moo yàggul waxantuma la ak àdduna kon na na ñëpp vraiment jàpp ci Sénégal ñu xam ne amuñu réew mi bien vrai que bu baaxee ñun la moom lañu am su bonee it moom lañ am kon donc ñoo ngi leen di jégalu bu baax a baax a baax ah, di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla di defal ay xéewali xéewali xéewal xéewal ndax la eh, sëñ góor ga waxoon rek sëñ Abdoulaye bu ne woon nañuy ñaan xéewal ndax teraanga goo gis baykoor a ci kanamam baykoor boo gis tamit ngi mu ngi ci kanamam kon nañuy ñaan xéewal xéewal du lu mën a nit di nit mën a gis ba di la iñaane donc yàlla nañ yàlla defal xéewal guy saawaan baawaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jégalu nag bu baax a baax a baax di jégaluwaat bu baax nag bu baax nag bu baax maa ngi koy jégalu bu baax ndax wax dafa jafe ndax euh, mun nga wax mu am koo blessé wala mu fekk jublu woo ci woon loolu kon lépp lu ciy jub ngeen xam ne ci yàlla la lu ci dëng tamit ci man mii la kon ñoo ngi jégalu bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu